si si si si biir match bi avant fin du match ba raté naa ñaari occasion c'est c'est la vie parce que bëggoon na libérer équipe bi avant mais par la suite on a gagné tiro bi ba c'est bon tout le monde est content ñëpp kontaan nañu. noo gisee tey supporter nu leen taxawoo. ba ñun xalaat xaaroon nañu lii parce que xaaroon nañu lii xamoon nañu peuple Sénégal suñ ñëwee fii stade bu bees bi ñoom ñëpp daan ñëw. dolli ñu doole aidé ñu voilà gis nañ loolu et kontaan nañ bu baax ci ñoom. bu baax sax loolu beneen beneen affaire la man dama demoon contrôle dopage maa ngi doogaay ñëw. <laughs> Ismaël waa Brésil man jubilé wu ma. Ismaël Ismaël waa Brésil waa Ndar ñëpp loo leen wax. waaw maa ngi leen di bëggee ñoom ñëpp di leen ziar.